li des nag mooy liggéey amul liggéey bu rëy liggéey bu am barke ci am man damay jox sama exemple bopp Chérif Chérif mii nekk tey préfet Guédiawaye xam na xam na xam na sama papa dama fekk ci bulletin salaire pépiniériste muy fayeeku quarante deux mille quarante deux mille ma xoolaat fi ma jaar ci àddina yëpp ma ne ko sama papa noo def ba dunduñu bañ toll nii ci quarante deux mille ñu nekk famille bu mag a mag a mag mu ne ma du alal du alal mooy def nit alal bu barke mooy def nit mooy jàpp sa xëy liggéey bu dégg ba cëg ñefe fu ñefe amul adduna bi amul lu fi joxe lu dul ñefe ku yaakaar baraaloo yaa ngi nax sa bopp man mii tey ministre de la république la lu ma def ministre de la république maa ngi nekk ci néegu ñax laa màggee jàngi ci lam pétrole di ñefe di ñefe baag si fii tey ah. li may dugg bi may dugg ci fonction publique bi may dugg ci fonction publique instituteur adjoint laa woon instituteur adjoint mooy niveau BFM may ñefe ñefe di dem ba nekk administrateur civil mbir mi nag loolu rek la nekk ci nettoiement jàpp sa njàng nekk ci nettoiement ut leneen mhm. ba leneen fekk la ci yàlla defal la ci barke loolu da leen di ñaan keneen keneen bu leen waxee leneen mu ngi leen di nax président Macky Sall c'est du concret jóge fi mu jóg jël ay milliards maa ngi wax su contrôle Dame Diop contrôle nee nañ Fatoumata ak Yankhoba Diattara ñu nga xam ne ñoo bokk conseil des ministres ay milliards milliards ne financement wu xale yi nañ leen ko génne mu convoqué assemblée nationale loi def loi de finance rectificative ne li ma digoon ndaw ñi ci avril dama bëgg ñu concrétiser ko mu ne recrutement yi dama bëgg ngeen commencé li ñu commencé ni sa gaawantu ci moo ñu bousculé man daam ak ne Fatoumata ak ak Yankhoba ne bëgguma ngeen parti semaine bi tey lancé wu leen xale yi ba xale yi xam ne li ma leen digoon maa nga ca kon nag la balle pour reprendre le, le mot des sportifs la balle est dans le camp des jeunes c'est à vous de mériter autant de sacrifices de votre pays et de votre président de République je vous remercie de votre aimable attention